li appel between man ak jigen ji Kaliphone Sall biiraloon yàq biir bi mom la lijeenti nombam ba jot ko di won ni ci appel bi jël na ma mit ko di wax li allo soxna ci na nga def mba yang ci jamm allo ça va ma ci si ko kalawon man la Cheikh Ahmed cisse Ahmed. Cheikh ah, ngi ci jàmm ah den maa ma daw léegi maa ngi Amérique baal ma ci teel woote bi. dëgg la kay dëgg la dëgg la dama doon préparé wu gën ñoo déggante. Zeyna moo ma jox sa numéro bi. waaw dafa guddi fii ci ci ci ñun nag waaye dafa teel ma ne balaa may tëdd naa la woo. waaw ah, waaw fii fait li paase moom passé na ñun ñëpp xam ne nu mu demee te man mm. dumay bëgg di wax ci loo xam ne dafay métti walla méttitu doomu aadama la mm-hmm. ma bëggoon nag nga xam ne waxtaan bi ñuy am man ak yow mm-hmm. dama ko bëgg a waaye lan moo tax ma bëgg ko enregistré mooy ñett benn mm-hmm. kuy wax ak doomi adama di ko enregistré war nga ko ko yëgal ñaareel ba jubluwuma ci weer la ndax man kuy défendre jigéen la ñetteel ba dafa am loo xam ne weesu na waruñ ci waaye pour mu leer dafay jàppale te day leeral lu bari lii rek laa ci jublu ma doon la ko ñaan di la xamal ne yàq la ak weer la taxul ma jot yàlla seede na ko. dëgg léegi nag dama la bëgg laaj ay question man ak mhm. yow.

donc bi ma lay njëkkee gis ma ngi gisé euh sa kër Liberté 6. ban ci Liberté 6 Liberté 6 extension. ok Liberté 6 extension précisément ban bor en fait tu euh, ci wetu Brioche Dorée bi. ok kër gi ma fekkoon barak la wala kër gu ndaw la wala nu kër gi mel. Hmm, non non non c'était au 6e au sixième étage. nga dëkkee non. kër gi mooy sixième étage. waaw man fan la dëkk ci kër gi. yaa ngi dëkk RDC ci suuf. d'accord soo duggee suma kër lu fa nekk. soo duggee sa kër am na écran plat bu mak mhm. ak euh, fauteuil yu ndaar yooyu noonu sëñ bi loolu mënu ma ko d'accord yow bi ci kër gi nga togon ci biti ànd ak benn xale bu lan mo doon sa reaction wala bala lol man lan la solon kalifon lum solon soloon. Kaliphone yow yaa ngi soloon trois pièces yere olof yoy noonu 3 pièces. hmm mom mu sot benn cap ak ci shirt bu noir non. d'accord solon yo soloon. bi ñu mhm. gisé rek lan nga def exactement. mais mu ko gisé dama ko poñe sëñ bi dama ko poñe ma jooy. Mhm. parce que c'était trop mal ce que ma def c'était trop mal jigéen laa aussi non c'est bon wala jubluwuma ci nga nga nga feel like this léegi bi man ma ñëw mhm. ñaan la nala la bàyyi ko ma wax ko mu dugg ci biir ma wax ak yow ba pare ñu mhm. ànd ci biir mhm. man yow laa njëkk a jox kàddu gi lan nga ma expliquer ci fi ngeen jaar ci nim la ba ci biir bi ba ni nga gëjë a gisee règle pendant deux mois explique ma loolu maa ngi jégalu nag wallahi suba teel bi bugguma am ak yow conversation yu mel ni mais man maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu mhm, baax wax wax en fait téléphone sëriñ bi il est doué dafa dafa mën a wax biñ mhm. duggee toog waxtaan

Mm -hmm. ok léegi bi loolu xewee ba biir am ci ba nga toog suma kër. xam nga mm-hmm. waxoon nga ban auberge la la tëddee. wax nga ma ne it ñaari yoon la la tëddee. benn bu ci nekk benn bi dix benn bi vingt mille te waxut la woon loolu. waay waay. Mm-hmm. léegi bi nga waxee loolu nga ne yow munoo téye biir bi parce que yaa ngi jàngi. Mm-hmm. ta salon ngay jang ak bop ta sa yaay mo la fayal dafa new doole mm-hmm. Mm-hmm. man ban reaction la def ak ñaata la jël ci Kaliphone jox lako kalifon au fait yow ya wax ak Kaliphone pour mu jox ma xaalis après ci la ma joxe d'accord d'accord légui bi nga ba def ko lan ci xew sama benn xarit moom boole bu rek benn gynéco. après mu am ay compléments ci biir bi. métti ba ma hôpital. mais ni mu yow yaa ma seet si te bi nga ma si tu m'as donné vingt cinq mille. ak ay fruits ma maa ngi jégalu jubluwuma ci loolu. te bi ma ñëwee nee la kale mu ci biti man maa ñëw ma yëkkati vingt cinq mille jox la ak ay waaw yaa ma jox vingt cinq mille franchement. Ah, après loolu ñaata yoon nga ma déggati yow. yow moo ma ñaari yoon sëñ bi parce que li ci li ci waroon a fekk Californie ke fekk ko fa parce que yow yaa ma woo woo nga ma ñaari yoon ne mais ku xool ci lan laa nekk. d' accord baal ma rek euh, bul jooy. wallahi tallahi jubluwuma woo la subateel bi yàq sa journée maa ngi jégalu maa ngi jégalu yàlla seede na ko c'est juste pour xamal la ne sa yaay jooju noonu néew doole di la fayal ngay dem salon pour jàng ak ni Kaliphone waxeek ak yow wan la passeport diplomate wan la ne Macky Sall ak Marème Faye lay waxal. <laughs> di toog ak Doro di ko def haut ba nga am yaakaar. mu dig la ak yow pari li lepp tax nga jox ko sa bop ba la cey am am ca lolou taxut la bonne te ni te ni nga ni nga gorlo ba mën bop di liggey ñu lay fay wer 80000 mu lew la ci li rek nga wara nek mhm. mang le massaw bu baax dina jéggalu tam ci appel bi surtout li passé ma yëkëti sa gom du suma yéene <laughs> yalla xam na ko ma ngi jéggalo bu baax ma ngi jéggalo bu baaxa baaxa baaxa baax non mais bu jooy nak yow wuy ma eh bu jooy en fait seen bi était un peu dur non xam na téléphone euh, c'est euh, kat la guru kat la te la nak il m'a fait trop de mal. non mais nag bàyyi yàlla. yàllaa ko ëpp doole. loolu bi ma waree taxawu taxawu ma yow yaa ma taxawuti ma donné ton argent donc nag bàyyi naa ko ak yàlla. non su ma mais su su fekkee du la déranger. nga baal ma rek xam na man damaa reetaan. <laughs> te damay bëgg nga reetaan parce que bëgguma lu la <laughs> bëgguma dara lu la naxari tamit man bëgguma nga mer. Euh, Kali moom euh, kii bi xam nga nag man maay sëriñu nante koy bi dafa gudd dafa rëy dafa gàtt wala day gaaw a daan nu mel baal ma rek foofu laa bëgg a terminer ak Kali lu ndaw la yor sëñ bi te dafa gaaw a daanu. Eh? loolu jigéen bu mu nekkal bu ne rek mën nga ma sayda loolu noonu lu ndaw la yor te salaamaaleykum mu egg teer yorul lu ñu joxoñ lu tuuti la yor moom moom jabaram yi fekkee ñu ngi may déglu wala ñeneen ak ñeneen ñu xam ne ni Kaliphone lu tuuti la yor. Mbadu da nga ko ak yooyu rek moo tax nga wax loolu. non euh, sëñ bi moi je parle avec le cœur. dëgg la. yàlla seede li ma lay wax Kaliphone Sall bu fekkee yaa ngi may déglu. yow koy bu tuuti nga yor yow loolu leer na la salaamaaleykum nga egg teer xaw ma nag nan laa def bu jël ci ëmb mais yàlla dafa waxoon que ni rek loolu dina ci am dina ci am mais yow xam nga ni nga yor te nga egg xam nga koy bu ndaw ak ëmb moom jotewuñ dara mais euh, maa ngi lay jéggalu daal ci appelu suba teel bi di la ñaanal yàlla jàmm di la wan ne ni ma doone woon sa frère démb. noonu laa ko doonee tey Amérique laa nekk. nekkatuma senegal ak tam xam nga mun munta nekk suma xarit loolu xew. ma di la jàppale ma gis nu mu ciy doxalee mu koy nëbbu ñaari jabaram yi. ma war a ànd ak yow bàyyi ko moom duma ma doxee noonu. mais comme lépp jeex na. dina la taxaw te incha saa yoo ma soxlaa woo ma lii mooy suma numéro.